la mu làmboo lépp ci xeeti teraanga yu ma mën a wax ak yu ma mënta wax euh, yi ma mënta wax ñu jégal ma ko waaye nag euh, góor daal ku ko teral war laa fàtte mukk jàppoon na suñ mbaay bi jàpp ko bàyyi ñoom ñaar nag seenu jàppan jàppante la ñuy wax ndax sëñ Abdou Xaadir it yaakaar naa ne ku nekkoon ak moom balaa bëgg nga ñëw tagg sëñ yëpp Lahad wax njàmbaar bu sëñ Abdou Lahad def su boobaa li nga ciy mën amee yow boo ko taggoon moom ci boppam doo ci amee loolu loolu euh, lu ñëpp xam la ku xam seen diggante jaxasoo woon nañ jaxasoo bopp waxuma la sax ñoom ñaar waaye seenu njaboot taalibe yu mag yi nga xam ne ñoo dëkke woon ci kër yi ku ne sëñ Baara Ndiaye sëñ Touba noonu niñ meloon ak waa kër sëñ Abdou Khadir ku demee ne bi mu fi nekk ak mag ñooñu niñ jaxasoo woon ba fu ñu dajee mën a toog di waxtaan kenn du ci nëbbu sa morom dara loolu ni ñaari cili cilif yi meloon moo ko waral ndax dafa lëkkaloo itam nu mu demee ak soxna may Maymuna mi nga xam ne mooy sa saqiixatu Seex Abdul Xaadir seen diggante yàgg na moo tax ñoom niñ mel bëgg-bëggub Sëriñ Tuubaa yàlla may ko saasu ne ci mbir lu mu dul may keneen la yaqaadallaahu ma alam yakuni wala yakun abra li mumkini loolu bari na ci anam yu bari yoo ko mën a xool gis ko ci sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir seenu nekkin mënees na ko caa xool gis ko ca sëriñ Ndiaye Guède bàyyi sëriñ Ndiaye Guède da daan wax moom bokk na ci ñi nga xam ne yàlla da ko mayoon ci mu mën a wattu ba sëñ Abdou Lahad bu ma saan def waxtaan fii ci jullikaay bi bu yàgg këram otoom jëlsi ko bu dikkee bàyyi sëriñ day jaar fi sëñ Abdou Lahad jaaroon fu mu nooyee sax dafay nooyee moom nag euh, mënoon na itam xam it seen diggante ku ci ne danga nga koo jegeñaloon sa bopp lool tam yàgg ak yow daana leen wax ne yéen ñaar de seen diggante li li tax Serigne Touba am ci lim ci am mooy yaar a ko waral njiit lu amul dara ci kiñaan ak aji topp ju amul dara ci bëgg àdduna moo tax ngeen mel ni ngeen mel loolu yaakaar naa ku leen xam ñoom ñaar wax jooju danga ko nangu bu baax kon daal loolu mooy li nga xam ne mënee su ko cee ñàkk wax waaye sëriñ bi mënee sutu toog waxtaan ko ci guddi wala sax weer ndax nag lii li mu làmboo ci ngëneel nun nun nun ñuy nun ñuy taalibe yi di njabootu sëriñ bi xam ngim nu xamal sëriñ bi man de dëgg dëgg nag sant naa ko ci loo xam ne loolu nag duma ko mën a waxe fii waaye daal na di na nit di def ba jariñu ci sëriñ Touba loolu moom moom ma ko laa laabiire loola nag tam euh, maa ngi ci sant bu baax su ma gisul lépp li ma ci gis doy na sëkk ci lu ma may noonu na ma ñëpp maa ngi sàkku ci ñëpp rek lu lu ma ci lu ma ci daaloon yàlla bàyyi nu fi ba nu jot ci lépp te lépp nu wute ku ngërëmam bii may wax ak gii may wax bi ma ci yebal Euh, moom booba yaakaar naa ne bis bi ma njëkk euh, am vol mooy bis biñ ko doon defal ñaan gi fii muy altine ji nga xam ne mbiram moo tax ma ma may ma fomm ba ca talaata ji laa mujj soo ko dem te loolu it euh, maa ngi ko fekk ci Touba Belel néeg boobu nga xam ne jàpp naa ne ci suba sa fa la wàcce du ko sore wala foofu daal fii la doon gisee mbooloo mi keroog néeg bi xam nga am na ñaari werandaa werandaa wu jëkk bi ngay jëkk a jot fi laa ko fa fekk mu ne ma jàllal ci biir ca werandaa wa ci des ni tuuti mu fekk ma fa daane maa ngi doon ragal sax nga tardé yàlla ma ne ko alhamdulilah dem am naa def naa lépp def naa ñàkk yeeg ba bis sàngam laa war a dem loolu jot na ko dégg daat may ñaanal ñaanal ma ba noppi daal man nag lenn rek laa soxla nga ñaanal ma ko fa ma doon taalibu sëriñ Touba tam nangul ma ko loolu nag dafa am lu lu lu ciy dégg moo di mm, man sama bopp booba samay at bëreegut ndax amaguma fanweeri at waaye la ma ci déggee mooy sëñ bi de lii moom xam naa ne am na ko ba noppi ndax la jiitu loolee sëñ Abdou Khadre génne na fii ci barab bi woo bàyyi Serigne Diagne ne ko demal ci Serigne Abdou ne ko bàyyam gërëm na ko loolu dégg na loolu ginnaaw mu may wax lii waaye li li nga ci xamee rek mooy amutoon genn bëgg ci àdduna guddul loolu lenn rek laa bëgg ku ma ko fa ñaanal doon taalibu Serigne Touba tam nangul ma ko man nag damaa jàpp ne booba man mii lay yëpp xamal ma ne bu fa ñaan lu dul loolu ndax moom lam bëgg lépp am na ko loolee yaakaar yi Serigne Touba jooju mu waxoon ne am naa yaakaar ci moom li ko sëñ Abdul Ahad gën a defale bokk na ci ci liggéey bi mu ko defal mooy bañ a tas yaakaaram ji xam nga daa nga dégg mu di ko wax man mi nga xam ne sama baay daa waxoon ne am na ci man yaakaar bu ma amee lenn lu muy bëgg lu dul lislaam waaw du ma du ma jullit loolu moom moo ko sañee wax waaye noonu la ko waxee woon nag <laughs> kon nag foofa rek la tegoon bëtam liggéeyal na ko ci njabootam bi la bëggee liggéeyal na ko ci taalibeem bi liggéeyal na ko ci ñim dëkkal ci lislaam ak nuñ mën di féete ku ne xam na ni sëñ Abdou Lahad wëlëre wu ne am na ko waaye kenn ku ci ne boo dee doomu aadama boo jikkee mu teral doomu aadama ngi du seet loo doon du seet foo bokk loolu tam nag mooy Sëriñ Tuubaa loolu mooy loolu la def ci jamono ba tax na itam nag nun ñëpp maase nañ bu bisam dikkee kenn ku ne war ngaa xam la ci sa warugar nga def ko ca man defa saa yéene sama diirub dund duma mas a fàtte Cheikh Abdou Lahad ndax lim ma defal ci loolu biir ak loolu bitti yàlla Sëriñ Tuubaa rek moo ko mën a defal nit kon nag loolu moom mooy li may wax bala maa waxal kenn waxal sama bopp sëñ Moodu Mbàkke man nga ne moom it moo ko yóbbu Makka kon ñi ci des ñëpp it bu fi desaatoon ak ñoom loola da leen koy defal sëñ Abdou Khadir xam ngeen ne ca Gédé la ko seexul xadim feeñu lii dañ koy wax kuy waxtaanee waxtaanu sëñ Abdou Khadir mën nga cee wax sëñ Abdou Khadir ndax dafay am lool ci jamonoom la doog a amee ba muy nekk Gédé fii dëkk kër gi mi ngi fi ñëw 1949 la ñëwoon fii ci këram gi te Gédé la jóge ñëw fi kon feeñu nañ ko jox ko ndigalul mu dem màkk aji koor gi nga xam ne ci ci tabaski bi la aji koor googu ba tey sëriñ bi joxaat ko ci ndigal loolee nag ba mu ko waxtaanee ak Cheikh Abdou Lahad la daal nag moom def yitteem jëpp mooy def bëgg sëriñ Tuubaa googu sëñ Abdou Khadre la koy doxloo ji waaye mu daal di nekk noonu lépp kon bàkke lépp maa koy def jandu ci def dara ba ci ñi muy àndal ñëpp bu yaakaar naa mbooloo lañu woon bokk na ca ñi àndaloon ñett ci doomi sëñ Mbàkke Buso sëñ Baaxir Bousso sëñ Assane Bousso moom mi nga xam yàlla def na foofa la wàcc liggéey fa la des ak sëriñ Muxtaar ñoom ñëpp ci lañu woon ak ñu bari ci bokk yi sëñ Abdou Darou Salaam ak yeneen i bokk sëñ Daam Atta sëñ Modou Habib moom sëñ Abdoulahi tey moo nekk kilifa kër ga ah, ñooñu ñëpp ci leen leen sëñ Abdou wax nañ gunge sëñ Abdou Xaadir yaakaar naa sëñ Abdou ci piste bu avion di wàcc ajug Sëñ Abdou Khadre googu lañ ko mos a gis ndax moo ko gungee ba mu dugg ci avion bi bi muy ñibbisi mu dem gàttandu ji ko naka mu wàcc ci avion bi yem ci moom jàpp ci loxoom ba mu dugg ci otoom ba mu dellusiwaat fi ci kër gi loolu lenn la ci luñ ci mën a wax waaye ñoom ñaar lañu séq lu bari nag yoonu kenn nekku ci doom yi ñu waa kër Serigne Touba xam naa liñ ci xam rek lañuy xam waaye nag lañu séq ñoom cofeel gu wér kóolute gu wér am na ci sëñ Abdou na ci Seex Abdul am na ci nag njabootu Sëriñ Tuubaa tey ñoom ñaar li ñuy waxtaanee kon ci ñoom ñaar lañ koy mën a yemale waaye lii may wax nii moom ci tàmbali ba rek dégg ngeen ko ci samay wax te dale ci Seex Mouhamadul Moustapha ba ci Seex Mouhamadul Mourtada ba ci soxna Fatija ba ci soxna May kenn kum ci yëg sa yitte balaa noppalu yitte ja daa mel na ko bëgg kooku mooy Cheikh bu laat bisam la ñuy jub maa ngi fàttali ñëpp di fàttali sama bopp waaye di fàttali njabootu sëñ Abdou Khadir ñu xam ne ku mas a tàggu sëñ Abdou Khadir ne ko maa ngi siyaare ji sëñ Abdoul Ahad lam la cay tegal mooy boo demee nga siyaareel ma ko te santal ma ko moom tamit mu baaxoo lool foo ko ko waxee mu ne moo ne man maa ko war a sant loolu ñoom ñaar a ko xam loolu daal mooy doxalin wi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ ci àgg jàmm def ko noo xam ne danañ jot ci barkeb mbégum sëriñ Touba moomee ak yaakaaram joojee nga xam ne kim yaakaaroon tësut yaakaar ji ba def fi liggéeyam bii te mustaam génn bëgg gudul ak bëggam fa nekk tey jii yàlla na am na lam bëgg waaye nag ñaan la woon nañu yàlla na ko sëriñ Touba nangul ak taalibeem lool lañ ko sañee ñaanal loolu laa ma laa mujj dégg ci moom mu wax ko kon nag kuy ñaan jàpp naa ne loolu rek moo di bëggam li ci des lépp nag da ngay dàkk man nag ginnaaw dégg naa li mu wax loolu rek laa fas yéene saxoo jërë jëf maa ngi sant Serigne Sidi mi nga xam ne moom xam nañ ni ginnaaw sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdou am na lu mu seere ci moom te loolee moom itam. tubaarkàlla saa su ne rek loolu la ñuy gis ci moom kon nag yàlla na yàgg ci kanam njaboot gi ak njaboot gi yàgg ci ginnaawam nu xamal leen ni ñaari kër yi du ñaari kër genn kër la sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Khadir benn lañu bari yàlla def ci def ay melo ci ak dëppoo dangay ngay koo ci waxal lam lay tontu boo dikkee ci kii ci des loolu lay tontu loolu moom mbirum sëriñ Tuubaa la waxoon naa ko jërëm ñu ci dellu moom la soob